الحمد لله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi yeesal sant suñu boroom ci lim ñu dëppale ñu daje ci am néegam di fas yéene jël benn bind buy leeral diineem ji nga xam ne ni dañu ko tànnal ñu koy sukkandikoo ci téere bii di minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah tey jii mooy dimanche ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre di dëppoog le 16 ci rabi ussaani ci 1443 ñu ngi nekkoon doon jàng la nga xam ne nii mooy buntu jumaa mooy la nga xam ne salaatul jumaa moom lañ doon jàng dimanche passé ñu jëloon ci ay bind ba jëloon ci la nga xam ne nii moom mooy ñetti bind ñu jëla war a jël tey ñeenteel bi mooy salaatu ma tayassara min annafila inda duxuli l masjid su dee ñu yor mool bu bees bi ñu ngi ci page 208 bi yenn traduction française yi ñu ngi ci page 191 mi ngi noonu boo xoolee rek salaatul jumaa nga xool def na ko ay numéro ba ci ñeenteelu tomb bi su dee bokk nañ ko gis day wax ne boo ñëwee juma salaatu ma tayassara min annafilati inda duxuli l masjid mooy nga julli la nga xam ne dana yomb ci naafila ci jamono ya nga duggee ca jàkka ja arba'u raka'atin fa aksar man ngaa julli ñeenti rakka walla lu ëpp ñeenti rakka mi ngi noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laa yaxtasilu rajulun yowma aljum'a mu ne góor day du sangu bi sa àjjuma wa yatataharu bi mastataa min tuhru mu daal di laab ca lam man ci ak laab wa yudaxinu min duhnihi mu daal di diw ca la nga xam ne mooy ak diwam mooy bu amee karaw gu muy diw aw yamassa aw yamassu min tiibi baytihi wala mu daal di laal ca parfum la nga xam ne mooy parfum këram suma yaruuxa ila al masjid gannaaw bu ma gontu jëm ca jàkka ja fala yufarriq bayna isnatayni bi mu ñëwee du teqalee diggante ñaari nit su ma yusalli ma kutiba la gannaaw ba mu julli la yàlla dogal ci moom su ma yansitu lil imaam gannaaw ba mu déglu ñeel imaam ba iza takallama jamono ba imaam di wax loolu de kenn du ko def illa gufira lahu min aljumuati ila jumuati al uxra lu dul dañ ko baal diggante ajjuma booba beneen ajjuma maa lam yaxsha al kabair fii yéeg demul di dugg ca bakkaar yu mag ya mbokk kon bu dee jullit dafa ñëw bisu ajjuma yoonal nañ ci moom mu daal di naafila ba lu bari ci borom xam-xam yi dañ naan waxtu wu ñuy tere naafila amul ci bisu ajjuma ndax xam ngeen bu dee ne ci wàllu yeneen bis yi la nga xam ne mooy zawal fi muy waaj a jotee la ko jiitu ci quinze à dix minutes dañuy tere ku naafila foofu amma ku mel ne bu dee bisu ajjuma ku mel ne imaamu Malik daana wax ne li ma fekk fii day la nga xam ne mooy taabiin ya jàng ca sahaaba ya jàng ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su àjjuma amul benn waxtu lu dul gis nga nit ñi naafila ci jàkkat kon boo ñëwee rek la la yàlla yombalal ci naafila naafila ko na doon ñaar la quatre la douze la yaa xam léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy bàyyi ba ñu noddal zawaal ñu doog a jóg commencé naafila waaye mbokk nañu xam ne nodd googu yonent bi alayhi salaam bàyyiwu ko fi nodd googu Ousmane moo ko indi ndax ci jamonoom Madina yaatu na nit ñi commerce bi tasaaroo na mu daal di xalaat nañuy nodd benn nodd boo xam ne dañ koy nodd ngir waa merse ba waajal ne jumaakat mi ngi waaj a jot imaam mi ngi ñëw loolee mook saxaaba yi ñu rafetlu ko daal di koy def waaye waxtu naafila juma moom mooy heure ba nga ñëwee juma rek la yàlla yombal ci yow nga jolli ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la wax ne ki xëy suba daa di sangu lum man ci laab mu def ko laabal ay yéreem bu doonte ne dafay war a socc war a lum man ci laab daal parfum yam am mu laal ko bi mu ñëwee ci jàkka ji ñëwul fekk di teqale kenn ca loolu mooy wane it fekk dafa place yi bàyyiwul ba jàkk ji fees mu ñëw naan puus leen puus leen teqale kool diggante kenn julli la yàlla yambal mu julli ko mu ne ko mel noonu day dana am yàlla di ko baal mboolemi bàkkaar yu ndaw yi mu juum ba mu des nag al kabair ba ko kabair moom fokk dañ koy tuub kabair borom xam-xam yi lañ koy xamalee nekk na loo xam ne lu wuute la waaye dal xamal ne bépp loi boo xam ne dañ koo teg ci bàkkaar bàkkaar boobu bokk na ci minal kabaayir lu mel na njaaloo lu mel na sàcc lu mel na naan ak yu deme noonu lépp loo xam ne it yàlla digg na ca mbugal ci téeréem wala mu rëbb ka ka def ila axiri yooyu yëpp day dugg ci kabaayir bokk na ci riba yaag lekk alali jirim yaag ak yu demee noonu yooyu nag yooyu boo ko moytoo bakkaar yi ndaw yi munta ñàkk ci jullit moom suñu borom dalay bal lépp bal am na riwaay bi wax sax dala cay tegal la nga xam ne mooy ñetti fan loolu itamit mbokk mu ñuy jàngal njumte bu rëy ñoo xam ne dañuy jàpp ne imaam kat heure tel lay ñëw ñu bàyyi ba heure boobu rek ñu ñëw toog ci jàkka ji déglu xutba mu am ñu gën a garaaw ñooñu nag ñoo xam ne seen yoon nekkul ci xutba ba sax dañ naan jàkka ji deux heures la ñuy julli dañuy toog ba deux heures ñu doog a ñëw mbokk loolu dañuy gis ne ay njuumte la suñuy jàngaat mu ne qatul kalaami wal abasu bi massil asa wa nahwiha ida xaraja al imam mooy ñu arrêté wax ji arrêté lépp loo xam ni day itteel nit ki mi ngi noonu foye sa jaaroog foye yi deme noonu ak nekk di maasala xeer ya nekk ca jàkka ja ci jamono bu njëkk ba noonu la woon heure boo xamee imaam génn na dañoo war a arrêté loolu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida qulta li saahibika yowma aljumuati wal imaamu yaxtub boo waxee sa àndandoo ba bisu àjjuma jamono bi imam di xutba nga ne ko ansit ay noppil faqat la xawta yow day indi nga coow ci jàkka ji wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man masal xasa faqat la xa ku nekk di maasale xeer ya indi na moom it coow wa man la xa fala jumata la amma ku indi coow ci jàkka ji ku mel noonu amul àjjuma kon mbokk day wax rek ne bokk na ci nit ñuy jaamoo yàlla mooy ak noppi suñu borom niñ koy jaamoo zikr ak wax noonu lañ koy jaamoo noppi noppi googu mooy lan mooy jamono bi imam du xutba moo gën ngay toog naan laa ilaha illallah moo gën ngay salatu ala nabi moo gën ngay istighfar lépp loo mën a wax ci sa làmmiñ jamono bi imam di xutba noppeeku gën mi ngi noonu noppee ko gën amma yonent bi alayhi salaam wax wax boo xam ne pédagogie mënta passé loolu yonent bi waxul ni kiy wax ci imaam di xutba ngay wax mu ne yow da nga indi coow ci jàkka ji waaye ki naan ko noppil ku mel noonu la ne mu indi coow ci jàkka ji xoolal loolu kon kay wax moom dañ koo jëllale mi ngi noonu su ko defee même bu doon te ngaa gis benn waay imaam di xutba muy wax su doon te ne ne mën ngaa yëkkati sol ko junj ko mu comprendre xayrul wala boog nga bàyyi ba jumaa ja pare nga laayu ko biir waaye yonent bi nee na wuloo tax sa naan ko waaye noppil waay gis ngeen wax jooju nga naan ko noppil rek yow yaa ngi indi coow ci jàkka ji te ku indi coow ci jàkka ji ku mel nu amul juma bokk na ci imam di xutba ngay maasale xeer yi nekk sa kanam waaye noonu it mbokk ñi nga xam ne dañuy yor ay kurosit imam di xutba ngay kii say kurosit loolee mbokk da ngay gis ne ci erreur yi la bokk yonent bi alayhi salaam mu ne ko mel noonu amul juma amul juma nag firiwul ni juma ji daa yàqu complètement ba daa war a julli tisbaar déedéet mooy daraja ji yàlla diggaate ci juma ngërëm ga muy gërëm waa juma loolee moom amu ko donte ne bu jullee juma ja dana am julli na juma tisbaar ba teggi na ko waaye yool bañ ci diggaate yool boobu moom moom lay ñàkk loolee kon ñu ñu bàyyi ci xel bu baax ci moytu di wax ci la nga xamee ne mooy heure boo xamee ne ni imaam mi ngi xutba bu dee juróom benneelu bind bi ida daxala wal imaamu yaxtub salla rakaatayni xafifatayni taxiyat al masjid su dee bi ngay dugg ci jàkka ji da ngaa fekk imaam mi ngi xutba da ngay julli ñaari rakka yu woyof nuyoo ko jàkka ji li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala ahadukum yowma aljumaa kenn ci yéen bu duggee bisu ajjuma wal imaam yaxtub fekk imaam mi ngi xutba fal yarka rakaatayni na julli ñaari rakka wal yatajaawaz fihima ca na gaawe ñaari rakka yooyee mi ngi noonu kon mbokk lii da ngay gis ne nekk na benn juuyoo ci lu bari ñuy tapp mazhab Maalik ndax comme moo gën a siiw fii ñoom dañoo gis ne imam bu xesee bay xutba kenn amatul droit naafila ba boo ñëwee ci jàkk ji da ngay toog waaye nag mbokk xadis bi dafay doon luy teqale ndax yonent bi bu ne woon rek ku dugg jàkk na julli ñaari rakka comme ni ñu ko jàngee ci gannaaw waaye fii daa préciser ne fekk imam yi nga xutba na nga julli ñaari rakka ca woyefal ko loole pour indi tegtali lu bari la waaye ala kulli xaal nañu xam ne rek soo ñëwee fekk imam di xutba da ngaa war a julli ñaari rakka léegi-léeg it mu am loo xam ne nii ay nit dañ koy def donte ne dañ ko dégg ci borom xam-xam donte ne lañ ci gis mooy njuumte la te boo demoon ci téere boobu ñu tuddee axtaaul musallin nit da ko cay leeral na njuumte la mooy da ngaa ñëw àjjuma imaam ñëw na noddukat bi nodd nga ñëw taxaw déglu nodd gi ba mu jeex nga doog a naafila loolee mbokk dañoo gis ne li nga xam ne mooy déglu xutba bi mooy priorité ci nodd gi aji nodd ji dañ ne nañ ko topp waaye kenn waxul bu bu ñu wax ci biir nodd tere wu ñu wax ci nodd dañ ne nag na nga wax li muy li muy na nga ko topp amma bu dee xutba dañoo tere kuy wax ci biir xutba bi looloo tax ba boo ñëwee juma fekk noddukat baa ngi nodd da ngay profité julli sa ñaari rakka balaa imaam a commencé xutba loolee da ngay gis ne la ñu gis ne mooy la gën a logique ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax imaam bu commencé xutba moom la gën mooy ñëpp nañ noppi mi ngi noonu bokk na ci it li yonent bi alayhi salaam wax kenn ci yéen bu duggee ci jàkka fekk imaam yi nga xutba waaw bu duggul ci jàkka ji nag loolee am na yenn borom xam-xam yi wax ne jàkka ji bu bu feesee ba génn dem mbedd mi day yor atteb jàkka waaye nag mbokk loolu borom xam-xam yi gis ne tahiyatul masjid mi ngi war ka dugg jàkka loolu lañ gis ne moo gën a logique su ko defee yow bu dee ajjuma da ngaa ñëw yàlla dogal jàkka ja fees na ngay jullee ca mbedd ma wala jullee ci kaw tali ba nga ñëw fekk imaam yi xutba su boobaa da ngay toog rek déglu amul tahiyatul masjid ndax yow duggoo ci masjid bi amma ko dugg ci masjid bi nag kooku mooy ka nga xam ne mooy def tahiyatul masjid su dee ne juróom-ñaareelu bind bi yukrahu taxatti rika bil jaalisiin wa tafruqa bayn bayn baynihim bokk na loo xam ne ni bañ nañ ko ki dugg ci jàkka ji di jiggi mbagge nit ñi ngir dem toogi ca kanam wala di teqali nit ñi naan leen puus leen pour ma toog loolee dañ koy bañ li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lillazi ra'aahu yataxatta rikaaba annaas yonent yi ba mu gisee waa ji dugg ci jàkka ja di jéggi mbaggi nit ñi di avancé mu ne ko ijlis faqad azayta toogal waay yow kat yaa ngi lor de wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fala yufarriqu bayna isnatayni ki ñëw jàkk waay bu mu teqale diggante ñaari ñi loolee mbokk kon gis nañu ne a teggine jàkka mooy nit ñi bu ñu ñëwee dañoo war di toog toogaayu sësante seen diggante waruñoo bàyyi ay espace ci seen diggante li ñu waroon nit mooy feesal premier sàppe doog a indi deuxième doog a indi troisième waaye almuhim mbokk jullit su dee da ngaa ñëw fekki nit ñaa ngi toog même boo gisee place ci kanam bàyyil ba nit ñi jóg taxaw su dee ne am nañu avancé nga doog a avancé waaye waroo nekk di jéggi seeni loos nekk di leen lor boo fekkee ay nit toogit waroo ñëw di leen teqale naan leen puus leen ma toog te mooy fokk war ngaa gis place boo xam ne ni bu libre la nga toog ko bu dee ñoom ñaar nag ñoo la yaatal loolu moom lislaam moo leen ko sant tafassahu yafsahillahu lakum mooy ñu gis la yaatal la nga toog waaye bul ñoo fekk ay ñi toog nga naan puusal fii puusal nii léeg-léeg nga toog fa toogaay boo xam ne yéen ñett ñëppay xat te loolu it islam du bëgg loolu hadis bi ñu gis am na ñoo xam ne ca la ñuy layee ci ne ki ñëw ajjuma fekk imam du xutba day ñëw rek toog ndax yonent bi alayhi salaam waa ji mu duggee ci jàkka ji def na ko hé toogal yaa ngi lor ñu ne kon waxu ko jullit waaye nag moo ko déedéet atte sharia kenn du ko jël ci benn atte dañ koy jël ci léppam kon yonent bi ne ni ki dugg jàkka na julli ñaari rakka loolu la ñuy jëfe waa ji mën na am julli na ñaari rakka ba pare bëgg a ñëw toog ca kanam la ko yonent bi alayhi salaam waxee bu jullul ñaari rakka it mooy taxawal fi nga taxaw doonte ne ne du toog lu dul ne dafa julli la nga xam ne nii mooy ñaari rakka loolu tax yonent bi na ko yaa ngi lor te mooy avancé bi ngay def arrêté ko yaa ngi lor mi ngi noonu bu dee juróom ñetteelu bind bi mu ne yaxramu albayu wa shiraau inda nidain laha dana nekk di araam lii di am njënd lii di am njaay ak am njënd heure boo xamee ne nii noddal nañ àjjuma ja li qawlihi taala iza nuudiya li salaati min yawmi aljum'a bu ñu noddalee julli ci bisu àjjuma fasaw ila zikrillah jóg leen ittewoo jëm ca fàttalikoog yàlla ga wa zarul bay'a ca bàyyi lépp loo xam ne am njaay la lii it mbokk jullit day wone ne ki nga xam ne jumaa da koo war mu nekk ci ab dëkk dégg ne noddal nañ jumaa ja ca du nodd gu njëkk ga waaye mooy nodd gay wañe ne imaam ñëw na su boobaa dafay war a xamee ne lépp luy jënd ak jaay araam na ci moom jënd ak jaay googee nag yemul ci kii dem di jaay mburóom walla muy jaay ay ginaaram waaye képp kuy liggéey imma nga jaay sa xam-xam walla ngay jaay sa doole kon loolu lépp da ciy dugg mooy waxtu juma kenn amul droit liggéey te loolu di ngëneelu yàlla ci gëm ñu defal bokkoon ne xeet yu jëkk ya da daan araamal ci ñoom bisu lëmm bu ñu liggéey comme lam ko araam woon ci lenn ci yahudi muy bisu samedi amma ñun l'islam lan la araamal ci ñun man nga wax une heure de temps par semaine une heure de temps par semaine mooy fi imam di duggee ci jàkka ji ak fi julli gi di jeexe jeex na daani ko mën naa manqué sax une heure de temps par semaine loolee kon tamit julit war cee bàyyi xel loolu mooy ñu jumaa war amma nag koo xam ne nii jumaa ja waru ko dañ na ñooñee mënees naa jëndanteeg jaayante waaye bàyyi woon ko mooy lëgën xatta jigéen ñaag musaafir yaag ñu deme noonu ci wàllu saddu zaria mooy fekk lu bon dañ ne waruñoo dem nekk di jaay ak di jëndante balaa fekk ki nga koy jëflanteel moom jumaa du ko war ba nga xamee ne nii tamit ngir teggi tuuma ci ñeneen ñëpp mooy comme waxtu jumaa daal lu gàtt la bu jotee ñëpp rek arrêté mi ngi noonu ba mu paase ñu doog a ubbi mi ngi noonu bu dee juróom-ñeenteelu bunt bi mu ne yustahabu qiraatu suuratul kahfi fi laylatiha aw yawmiha sopp nañu nga jàng suuratul kahfi ci guddig àjjuma gi wala ci bëccëgu àjjuma bi li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man qara'a suuratul kahfi fi yawmil jumaa képp ku jàng suratu kahfi bisu àjjuma day adaa lahu min an-nuur dana leeral ñeel ko ci dana ko leeral ngi noonu ci ak leer ma bayna al-jumu'atayni loo xam ne dana dem ba beneen àjjuma ji dellu siwaat loolu it mbokk julit kon saar bu mag boobu di suratul kahfi képp koo xamee ne nii guddig àjjuma jot na baba bëccëgu àjjuma ba ci ca fajant bi sowe nga la way xooral kañ nga ci am temps man koo jàng loole da ngay gis ne nekk na ci li ñu gën a yaakaar ci loole da xam ngeen ne ak leer ki nga xam ne moom la yàlla leeral xolam moom mooy xàmme lu baax xàmme lu bon mooy bëgg ngëm mooy bañ kéeféer mooy nangam mooy nangam mi ngi noonu wa man lam yajalillahu lahu nuuran fa ma lahu min nuur ku yàlla leeralul nag doo mën a xam ci loolu dara loolu moo tax ba ci lu ñuy war a yaakaar ca bañ koy sàggane mooy di jàng suratul kaf ba ca mujjoon mooy fukkeel ba déedéet wala fukkeel ba la ñuy wax rek fukkeel ba mooy al iksaar min alsalaati wassalaami ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sajjuma day waras naa bëri lool di julli ci yonent bi li qawlihi aksiru alayya min as-salaa ebay bëril leen ci man julli yawmal jumaa wa laylatal jumaa bëccëgu àjjuma ak guddeeg àjjuma bëri leen di julli ci man fa man faala zalika kuntu lahu shahidan wa shafian yawmal qiyaama loolu day képp koo xam ne nii dana koy def yowmal qiyaama danaa nekk aji seede ñeel ko ca danaa bokk ci ñi koy ràmm loolu it mbokk mi ngi noonu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nekk la ko jullit di war a def ngalla waay ut ci benn dog boo xamee ne nii nga koy def te xel bés bu nekk nga lum néew néew nga julli ci yonent bi alayhi salaam même bu doon téeméeri yoon ak noo ko mën a defee waaye bu dee guddi ajjuma ak bëccëgu ajjuma nga gën koo yokk lum gën a bari gën a baax amul lim mi ngi noonu boo demoon ba yegg junni sax yaa xam fexeel ba loo gën a bari nga gën ko yokk bu ko utal rek tënk boo xam ne da nga koy tënk nga xam ne lii rek ngay def waaye defal ba mu bari lool tey nga def lii ëllëg nga def leneen loolu da ngay gis ne ca lañ gën a yaakaar ci ay tuyaaba ca la bokk la gën a gàtt mooy allahumma salli wa sallim ala muhammad mi ngi noonu loolu la ci gën a gàtt ba ca gën mooy ngeen defe ko ni ngeen di taaya muy salatu ibrahimiya ba loolu mooy la nga xam ne mooy la nga xam ne moom mooy ca gën mi ngi noonu bokk na lu Sénégalais yi miin lool laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu da ngay gis ne dafay boole laa ilaha illallah boole julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it képp koo xam ne mën na koy def loole lu am solo la lool jullit ñi bañ koo bañ koo bañ koo sàggane mi ngi noonu kon bi ci mujjoon mooy al iksaaru min ad-du'a mooy baril nag lool di ñaan yawmaha ca la nga xam ne mooy bisu àjjuma li anna bihi saata istijaaba ndax yàlla def na ca waxtu nangu ñaan man saadafaha istijaaba la istijaaba allahu lahu képp koo xam ne nii dëppoo nag waxtu boobu yàlla dana wuyu ñeel ko ñaanam googe wa aataahu ma saala te dana ko jox la nga xam ne da ko koo ñaan qaala sallallahu alayhi wa sallam inna fi yawmi aljumaa la saa nekk na ci bisu àjjuma day benn waxtu laa yuwaafiquha abdun muslim du dëppoog moom mukk jaam boo xam ne nii jurit la yasalu llaha azza wa jal muy ñaan yàlla mi màgg ca tedd ngi noonu fiiha xayran illa ataahu iyahu mu dëpp ak moom di ñaan yàlla yiw lu dul yàlla dana ko jox yiw woowee nga xam ne ni moom lay ñaan warada annaha ma bayna xuruj al imam ila faraghi min as-salaa rot na ci ay riwaaya ne xadis waxtu woowu day mooy fi imam di génne ba fi julli gi di jeexe waqad qiila innaha ba'da al asr doonte ne am nañu ne mi ngi nekk gannaaw takkusaan kon mbokk jullit day xam ne suñu borom yàlla mooy bind lu ko neex di tànn xam nañ ne dëkk bi la ca yàlla tànn mooy jàkka yi jàkka yi ñoo gën a tedd yeneen place yu dul ñoom du mel ne ñetti jàkka yu mag yi it ñoo gën a tedd yeneen jàkka yi ñetti jàkka yooyee ba ca gën a màgg mooy masjidul haram noo ñit la suñu borom màggeele bis yi bi si semaine bi da ngay gis na ba ca gën a màgg mooy aljuma aljuma moomu ci boppam it yàlla séddale koy waxtu mu am ca waxtu wu màgg woo xam ni yàlla du ca delloo ñaan loole suñu borom yàlla nëbb gim ñu ko nëbb yërmaande la ñeen xeet bi comme nim ñu nëbbe rek laylatul qadr ca loolu mooy yow jullit fexeel ba ajjuma yépp def ko bi def ko waxtu ñaan rek ajjuma yépp def ko waxtu ñaan guddi gi ak bëccëg ba doonte ne yaakaar yi ci gën a mag mooy fi imam ñëwee ak fi julli gi di jeexe xadis boobu muslim soloo na ko amma nag lu ëpp ci borom xam-xam yi ñoom lañ gën a yaakaar mooy gannaaw julli tàkkusaan gannaaw julli tàkkusaan ba ba jant ba di soo rawatina nag fa jant ba di waaj a sooy loolu moom lañ gën a am yaakaar su ko defee guddi àjjuma ak bëccëgu àjjuma yëpp na nga koo jagleel ay ñaan waaye rawatina nag suñ demee ba gannaaw takkusaan nga gën a bari lool say salatu ala nabi gën a bari lool la nga xam ne mooy say ñaan ca di bari ñaan la nga xam ne mooy yiw àdduna ak yiw àllaaxira ndax la nga xam ne ni yonent bi sam nee na boo dëpp ak moom boo ko ñaanee yàlla may la ko pertement mënta paase yemale ko ci àdduna rek. kon dañuy ñaan yiwu àdduna di ñaan la nga xam ne ni moom mooy yiwu allaaxira lii mbokk moom mooy teggin yi nga xam ne jullit bi nekk war naa góorgóorloo di ko tegginoo ca la nga xam ne moom mooy bisub àjjuma doonte ne ni bunt bi mu ci teg mooy shuruutu wujubiha waaw ajjuma moom kan la war ajjuma kan la war mu ne wahiya azukuriya fala tajibu ala ala ala imraa ajjuma mi ngi war góor jigéen dem julli ju juma waru ko dem julli ju juma waru ko ñaareel bi alxurriya fala tajibu ala mamluk mooy góor ñi la julli àjjuma war ci ñoom jamono bi jaam yi am kii nga xam ne jaam la julli ajjuma warul ci moom albuluur mooy majeur fala tajibu ala sabi xale bi nga xam ne majeuragul amagul quinze ans ci yenn race yi ku mel noonu da ngay gis ne juma warul ci moom asixa mooy ak wér fala tajibu ala marid ki feebar juma warul ci moom maridin la yaqdiru ala xuduriha koo xam ne amul kattan ci fekke ko juma warul ci moom lama bihi min marad ngiree la nekk ci moom ci feebar ñeenteel bi bokk juróomeel bi bokk na ci al iqaama mooy nit ki toog ci dëkkam fala tajibu ala musaafir du war ci aji tukki li nga xam ne mooy juma juma waru ko wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi de moo ne woon al jumaa xaqun waajib jumaa de àq la ju war ala kulli muslim illa arbaa war na ci bépp jullit ba mu des ñeenti ñi abdun mamluk jàmb ñi moom aw imraa wala jigéen aw sabiyi wala xale aw marid wala aji feebar wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir képp ku gëm yàlla gëm bisu mujj bi day fa alayhi al jumaa ku mel noonu jumaa war na ko yowmal jumaa ci bisu ajjuma illa maridan aw musaafiran lu dul aji feebar wala aji tukki aw imraatan aw sabiyan aw mamluka wala jigéen wala xale wala ku ñu moom wa haza wa kullu man xadaraha mimman la tajibu alayhim waaye day képp koo xam ne nag fekke na ko ci ñooñu nga xam ne juma waru leen wa sallaha ma al imam ajzaatuhu mu julli at juma ja ànd ak imam loole da ngay gis ne dana doon lu koy doy wa saqata anhu al waajib teggeeku na ci moom wareef ba nekkoon ci moom fala yusalli zuhra ba'daha abada du julli tisbaar gannaaw loolu mukk kon mbokk dañuy gis ne lim ne fii juróomi nit ñoo xam ne jumaa ji waru leen waaw bu ñu demee jumaa nag mbokk jigéen su demee jumaa tuyaa ba ja góor ñi am dana ko am la nekkoon farataam mooy tisbaar jumaa du woon farataam waaye su demee julli ji jumaa faratay tisbaar ja teggeeku na ci moom tuyaaba ja góor ñi amit dana ko am loolu moo tax ba jigéen bu ko yàlla yombalee muy war a dem juma waa ji feebar am na ngant ba ñu dem ca juma ja ku mel noonu tisbaar muy farata waaye bu forcé malgré feebaram ba dem ci juma ja teewul dana am yoolu waa juma ji ci tamit tisbaar ba dana doon loo xam ne teggeeku na ko moom la ñuy wax ci yeneen ngant ñeneen ñi nga xam ne ñépp juma nekkul di war ci ñoom loolu mooy chartu wareef léegi nag shurutu sihatiha lan mooy tax mu wér te loolu it jullit da koy war a bàyyi xel jaamu yàlla gu nekk day am charte bi tax mu war la am charte bi tax mu wir ci boppam mi ngi noonu loolu la amee ci jullee koor ak lu mu mën a doon kon yan charte mooy tax juma ñu mën koo nangu la ca jiitu mooy alqariya fala tusaxu ljumaa fi baadiya aw fi safar juma daal ci dëkk lañ koy def mooy dëkk bu mag bu ñuy tuddee dëkk juma kenn du ko julli ci dëkk kaw yu ndaw ya kenn du ko julli it ci jamono bi ngay tukki is lam tusalli al jumaa ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa fi al mudani wal qura jamono yonent bi kenn mësul julli juma lu dul ca dëkk yu mag ya muy almudun muy ville yu mag ya wal qura ak yenn dëkk yu ya nga xamee ne nii ñoom it ay ville yu ndaw lañu rek amma dëkk yi kaw yu ndaw ndawaan ya jamono yonent bi alayhi salaam mësuleen a sant ñu julli juma walam ya'mur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahlul baadiya bi salaatiha ñoo ñee dëkk ca baadiya ca kaw ga yonent bi mësuleen a sant ñu taxawul juma wa ala kasrati safarihi lam yusbit annahu sallaha fi safarin abada yonent bi it ay tukkeem bari woon na lool daana tukki di ànd ak lu jege ay dix mille personnes sax waaye taxul ajjuma mësu koo dab ba mu julli juma ci ay tukkeem loolee kon day wane ni juma kenn du ko julli cib tukki kenn du ko julli it ca la nga xamee ni nii day nekk ay dëkk yu ndaw ndawaan waaye fokk ca dëkk ya mag yi rek lañ koy mën a taxawe ñaareel bi moom mooy almasjid mi ngi noonu fala tusaxul jumaa fi gayri abniyati almasjid masajid wa afniyatiha du wér mukk ñuy taxawal ajjuma ci lu bokkul ak ci jàkka joo xam ne dañ koo tabax ak la nga xam ne mooy kuur ya ko wër xatta la yataarrad almuslimuuna lil xarri aw il bardil mi ngi noonu mudarrayni ya nga xam ne nii dañuy lor ca kon it mbokk ci ni mu waxe moom ay jullit duñ dem rek ci ab bayal ne dañ fay taxawal juma fokk juma day nekk ci jàkka ju ñu tabax ñetteel bi tax jumaa ji wér mooy alxutba fokk jumaa ji pour mu wér fokk mu am ku ñëw xutba fala tasixu salaatul jumaa bi duuni xutba du dagan ñuy taxawal jumaa te fekk ne dañoo ñëw rek julli dem seen yoon kenn xutbawul isma shuriat salaatul jumaa illa min ajlil xutba ndax kat boo xoolee yoona lu ñu jullik ajjuma lu dul xutba ba mooy xikma ba ca gën a rëy te niñ ko jànge woon dimanche passé mooy jullit ñi majeur ñépp daje ci nga xam ne mooy imaam taxaw seen kanam fàttali leen seen wareef ci diine ji fàttali leen position bu ñu war a jël ci xew-xew boo xam ne daa dab lislaam loolee kon xutba bi fokk mu am ci la nga xam ne moo ci mujj mooy laa ta naam laa tajibu ala man kaana baidan an il qarya koo xam ne dafa sori lool dëkk ba ku mel nii juma wóoru ko laa tajibu salaatul jumaa ala man kaana yaskunu baidan an il madina juma day du nekk di war koo xam ne fa mu dëkk daa sori dëkk ba allati tuqaamu fiha al jumaa mu dëkk ba ñuy taxawal juma juma da koo sori bi aksara min salaasati amyaal loo xam ne sore na ko loo xam ne day nekk ñetti maa yi te loolu boo ko xoolee day tourner autour des quatre kilomètres et demi jëm cinq kilomètres li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al jumaa ala man samia an nidaa jumaa daal ña ngi koy jagleel ñiy dégg noddu ga wal aadatu jaariyatu doonte ne aada ya nga xam ne mooy dox nit ñi xam ko an na sawtal muazzin ne lii di kaddug noddukat laa yatajaawazu madaahu salaasata amyaal la nga xam ne mooy guddaayam ba doo mën a romb lii di ñetti amyaal ca mooy mi ngi koy wax sax mu ne arbaata kilomètre wa nisfa mooy du tollee quatre kilomètres et demi kon koo xamee ne nii dëkk kaw ba nga nekk wala place yi ngay liggéeyee dafa sori dëkk ba quatre kilomètres et demi su boobaa da ngay gis ne yow juma joojee nekkul di la war donte ne boo déggee ñu ne nekkul di ko war su defee effort ñëw julli si juma dana am tuyaaba ja waa juma ji di am léegi nag nag mu safaanoo ak yow mi nekk ci dëkk bi masalan tey jii buñ ne woon parcelles yi amul juma na am waaye HLM am na juma fii ak HLM 10 kilomètres wala nga lu mel noonu masalan ci exemple rek maadaama yow ci dëkk bi nga nekk su boobaa dañ naan jumaa ji war na la même bu doon da ngay dox 10 kilomètres sax yegg ci jumaa ji loolee ndax ëmb ga nga xam ne da la ëmb am maa nag yow boo nekkul ci dëkk ba loolee da ngay gis ne dañ naan jumaa ja nekkul loo xam ne nii dana doon li la war lu dul ñu sukkandikoo ci hadis bi nga xam ne nii da ko indi moom mooy jumaa mi ngi war ki dégg nodd doonte ne boo xoolee ci suuf def naan la hadis ba nekkul hadis bu wér bu doonte ne ne ci hadis boobu rek la ñuy sukkandikoo kon képp ku déggul nodd ga moom même boo nekkoon ci dëkk bi it jumaa waru la waaye daal bokk na la ci borom xam-xam yi di wax ki nekk ci ab dëkk ci dëkk ba ñu fay taxawal jumaa su boobaa war naa fexe teewe juma ja lu dul dafa nekk ci ngànt am maana koo xam ne da ngaa nekk dëkkoo ci dëkk ba ci beneen gox nga dëkk ca sori nga dëkk ba lu ëpp 4 kilomètres ku mel noonu dañ naan juma ja moom waru la kon mbokk loolu mooy jaamu yàlla gu mag googu di julli juma lépp luñ ca julli yàlla na yàlla nangul ñu ko yombalal ñu li ca des ba ñuy dajeeg moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal ñi nga xam ne buñ ñëwee ci juma dañuy bàyyi sàppee ca kanam toog ca gannaaw ñooñ ñoom dañ leen war a laaye biir dañ leen war a laaye biir xamal leen ne nañu avancé ñi leen ñu toog seen gannaaw su ko defee heure boo xamee ne it am nga bunt boo mën a jaar jaar seen kanam pour dem ca kanam loolee dañuy gis dara nekku ci la nga xam ne moom la ñuy tere rek mooy nga jóge leen gannaaw di jéggi seeni loos di dem di jéggi seeni loos loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere woon waaye daal la ñu xam ne dañ leen war a laay biir ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam day fekk waaw waaw naam non bu ne koo xam ne nii léeg-léeg dañuy xutba moom mi ngi nekk di yelwaanal jàkka ji bilal baa du def loolu ala kulli xaal loolu moom def na njuumte imaam ba def na njuumte ndax bu dee ne jàkka ji lay yelwaanal imaam mooy responsable numéro un ci jàkka ji kon buy xutba gis ku dugg ci sàpp si di yelwaanal jàkka ji war na ko wax toogal loolu kenn du ko def loolu ci loolu jéggi na dayoo ala kulli xaal ñàkk xam daal moom la ñuy def loolu ka koy sarax sax deful yoon waxumaa nag moom mi wër di yalwaan ci biir sàppe si wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam la nga xamee ne nii moom mooy kuuru jàkka ji loole da ngay gis ne dañ koy jàpp ne kuur la bu sës ci jàkka ji du yem ak mbedd mi daraja doonte ne ni du yem ak biir jàkka ji daraja masalan tey ji waa ji ñëwoon rek dugg toog fee ca jàkka ji duñ ne ko bala ngaa toog ci kóor bi da ngay julli la nga xam ne mooy ñaari rakka li gis ngeen ci kóor bi ca la ñu dagg ne tabax ci ay douche ak ila axiri kon yëmul ak li nga xam ne dañ ko clôturer ne lii moom jàkka la loolu bu ko defee dana am orma boo xamee ne masalan tey bu doonte ne da ngay def itikaaf dañ naan may nañ ko def itikaaf mu yegg ci kuuru jàkka ji mu yegg ci kaw jàkka ji donte ne duñ ko may mu dem mbedd ma loolu daal mooy mbir bi kuuru jàkka ji am na wor ma waaye nag yemul ak li nga xam ne dañ koo clôturer ne lii moom mooy la nga xam ne mooy jàkka mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam naam naam taxaw pour garder ko wala waaw waaw ala kulli xaal daal li ñuy jëkk a wax mbokk mooy juma moom kenn amul droit di ko faat lu dul ci lor lor googee nag dañ naan lor bu nekk dañ koy méngale ak situation ay ad-darura tuqaddaru bi qadariha waa ji bu doon te ne tey jii dafa nekk service boo xam ne su demoon bàyyi service dem ci jumaa ji léegi ñu dàqu ko loolee mën na nekk ci moom lor goo xamee ne ni mën na koo teggil pour mu bañ a dem jumaa allahuma la dul bépp julit it war ngaa bàyyi xel ne yow man julit la avant may def ci lu nekk bépp liggéey booy liggéey nga bàyyi ci xel naka lay mën a def ba situation yooyu du ma ci dugg waaye daal bu dee ne loo xam ne dafa gaar la nga xam ne du doon luy sax léeg-léeg rek la nga yegg ci xaal boo xam ne wóor na ne lii moom boo ko defee sag dàq xaj na ci léegi loolu dañ naan ngànt la pour ñu teggil la ko am maana bu ci loolu amul da ngaa war a dem julli ji jumaa loolu la ñuy wax ci garde corps bi nga xam ne dafay garder ab autorité ndax gis ngeen masalan lu mel ne masjidul haram léeg-léeg bu ñuy julli am ñu taxaw di garder loolu it yéen ñëpp xam ngeen ne am na attentat yu fa amoon ay 86 rek yu demee noonu lu mel noonu moo tax seeni borom xam-xam ñoomu toléré loolu li ñuy war a wax daal li ñuy wax daal mooy jaaduwul ñu koy def lu dul ci lor boo xam ne laaj na ko lu bëri nag ci suñu autorités yi laaju ñu lor lor boobu yegguñu ci ba tax seeni garde corps du ñu julli loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax ñaareelu question bi mooy ki am ngante ba julli jiwul jumaa ndax day bàyyi ba jumaa jo julli ba pare mu doog a julli déedéet mbokk loolu am na ñu koy wax waaye tegtal amu ca ki nga xam ne julli jiwul juma tisbaar moom mooy farataam fu mu yégee ne tisbaar jot na waa juma ji julli nañu julli wuñu moom day julli boo xoolee dëkk yi mel ne suñu dëkk yi lu mat fukki juma kenn ak ñoom bokku ci sax waxtu morom bi di julli kon daal mbir mi mooy moom tisbaar mooy farataam tisbaar jot na bu jullee tisbaar su boobaa juma ja doon na loo xam ne ni wàcc na ko bokk na lu ca borom xam-xam yéen nii di wax mooy na yéexe tisbaar ji ndax rawatina bu dee ngante ba ko tey dem juma yàlla mën naa def mu teggeeku kon na xaar ba xam bala ñoo julli juma ndax ngante ga du teggeeku suñ demee ba julli juma nag ngante ba teggeeku mu doog a julli waaye daal ñoom leer na leen man mii kat dem mu juma ja muy jigéen ñaak musaafir yaak ña nekk ci lor fu tisbaar jote mën nañ julli wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam waaw waaw waaw guddi àjjuma la wax wala bëccëgu àjjuma mënees na koo jàng guddi àjjuma mënees na koo jàng bëccëgu àjjuma mi ngi noonu ah ah ah sangu janaba wala kulli xaal loolu waxoon nañ ko dimanche bi passé moo dine ne sangu àjjuma ñi ngi ko yoonal ci bëccëgu àjjuma ay fi fajar jot lañ ko yoonal koo xam ne nag da nga am lu leer ne man kat bëccëg bi yépp dama am ngant damay am ngant dama mën a sangu su boobaa it nam gën a jege bëccëg ba nga koy defee mooy nga sangu ko ci njël ga fa nga yeewoo njël avant ngay julli fajar nga sangu sa àjjuma doog a doog a dem julli ji fajar booy xëy nga doog a xëy loole mooy kim leer ne man duma am benn temps pour def ko ci bëccëg bi wallahu subhanahu wa taala alam na ah ah ah mu ne déed déed déed déed déed déed ah waaw waaw mais am na dëkk yoo xam ne jumaa dafa ñëw te dëkk yi dañoo rëy boo julli woon fajar des fois di dox daal di doo yegg waa la kulli xaal xam nga xam nga borom xam-xam yi bi ñuy bind seeni téere ak li xew li xewul dëkk yu mel ne ay Bangkok dëkk yu mel ne ay kii xam nga ne ne jamono jamono yi nga xam ne fuqaha yi dañuy bind seeni téere néewoon na nga gis dëkk bu toll ne Dakar loolu genn wàllu Dakar sax néewoon na ngi gis ko léegi rek àdduna daa mujj dox àdduna daa mujj dox ndax xam ngeen ne même suñu dëkk yi rek daanaka boo génne woon Dakar ak quelques villes dëkk yi ci des yépp foofa dëkk mën ngaa dem ci jumaa ji daanaka Sénégal mën ci cinq dëkk rek bu ko ci génne woon dëkk ci des yépp foo nekk mën ngaa dem jumaa ja donc loolu moo tax ñu ko doon wax amaa nag bi ñu demee ba àdduna dëkkee doxe nii mu doxe nii nga xam ne am na ay dëkk yoo xam ne daanaka am na ay capitalu dëkk sax yu mu gën a sorenteel su boobaa dañuy gis na lor la bu dee yow jóge sa kër dem ca jumaa ja boo jógoon fajar sax doo yëg avant jumaa ku mel noonu bokkoo ci ñi ñuy wax loolu daal kon nañu xam ne ñoo ngi ko wax ci dëkk yu normal ya xewoon jamono yi ñuy xool fiq waaye lépp loo xam ne temps dafa dem ba changé ko ci lor lor dañu naan ad darura tubihul mahzurat lor bu ñëwee day teggi mi ngi noonu la nga xamee ne nii moom lañ doon tere wallahu subhanahu wa taala aalam waaw ñu mujjee ci mbokk bee rek bismillah waaw waaw waaw mu ne mu ne mu ne waaw waaw mu ne wala ku li xaal li ñuy mbokk bi muy laaj sànq daf ne kahfi ak yaasin waxuñu yaasin bokku ci kahfi rek la ñu wax moom la ñuy jàng ci bisu ajjuma mu ne ndax dana dagan ñuy jàng xutba ajjuma ci leneen lu dul langue arabe ala kulli xaal xëy na bu doon jullee fii dana xam ne fii dañ fi xutba dañ ci langue di ci wax beneen langue bu dul arabe mbokk la nga xamee ne ni mooy xutba boo xoolee xikma bi taxoon ñuy def xutba moom la waa ji wax nee na xutba xikma bi tax ñu tëral ajjuma muy xutba ca mooy wax ak mbooloo mi loo xam ne dana leen yee seen diine yee leen ci engagement yi ñu war a jël loolu nag mbokk ci xikma doomu aadama bu mu mën a doon xam nga ne ne nga tiim benn mbooloo di wax ak ñoom di leen jàjji ci loo xam ne comprendre ruñ ca dara xel munta nangu loolu loolu daal moo tax doonte ne ni soo demee ci mazhab Malik ñoom dañ naan xutba dañ koy war a def ci làmmiñu arab waaye mbokk Malik nekkul woon di dund la nga xamee ne ci dëkk ya nga xam ne nii quatre-vingt-dix-neuf virgule nangam dégguñu arab yaa ngi dégg loolee mi ngi noonu xutba buñ koy wax mooy suñu borom mu ne del jàjji jullit ñi dee leen xub dee leen bégal dee leen nangam bu dee la ngay wax ñoom xamuñu ci dara loolee ban njëriñ lay am ci ñoom du am ci benn njëriñ looloo tax sunu maam yi nga xam ne dañoo tënk ci loolu da ngay gis ay xutba yoo xam ne dañ ko xutba woon depuis des siècles ci gannaaw léeg-léeg sax am na ci xutba it yoo xam ne buñ koy jeexal dañu naan yal na yàlla sàmm buur diw buur diw ñoo xam ne dañoo jiite woon Irak ak nangam dee nañu depuis des siècles waaye comme ñoom dégguñu arab ñoom ñu xutba sax dégguñu arab loolu mbooloo mi di wax amin amin almuhim daal ci gàttal la nga xamee ne nii moom la ahlu sunna yi nekk ci suñu réew di jafe. mooy ñoom xutba bi daañ ko def ci arab mooy l'essentiel bi daañ ko def ci arab daañ jàng ay aaya sant borom bi tënk xutba ci arab te xutba boobee même bu doon trois minutes sax dañ koy tudd xutba gannaaw ba nag ñu leeral mbokk yi ci langue ba nga xam ne dañ koo dégg loolee mi ngi noonu ba nga xamee ne même waa ji bu doon dafa ñëw lakk langue dëkk ba kese loolee kenn mënu ko koo dàqal waaye it ngir mucc rek ci ay polémique mooy ahlu sunna yi nekk ci Sénégal yépp dañoo gis ne xutba bi dañ koy jëkk a def ci arab tënk ko ci arab gannaaw ba nag wax ak mbooloo mi ci la nga xam ne moom la ñu dégg mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain